loolu lan mooy sa relation ak Toch na gis nañu muy def li nga xam ne moo di ndogu fii ci Kër Massar nga daal di ci teew ànd ak Mouhamed Alla waaw Toch dafa nekk sama xarit nekk sama waay ñu am benn complicité bi boo xoolee bu yàggul ci ginnaaw tuuti ñoo àndandoo dem Bercy je peux dire ñoo bokk sax même chambre parce que day bàyyi chambre am ñëw sama chambre wala man ma bàyyi sama chambre dem chambre am maanaam muy muy nit ku woyof nit ku baax nit koo xamante ne ñëpp ko bëgg Toch mënoo ne kii amul parce que maanaam bu la suñu borom fayee li ngay séddalee xolu jaam ñi rek maanaam mon frère di nga am lu baax a baax ndax maanaam nga nekk si télé bi di seddal ay xolu doomu aadama ñu lay seetaan xamoo ku feebar xamoo dara ku nekkee toog di la seetaan bëgg la rek te yàlla tax kon kooku amoo amoo lu dul lu dul di ko bëggee bu baax a baax ñu koy ñaanal ndax yombul. si lu toll ni weeru nga woo ay doomu aadama jox leen ñu loolu bul xam maanaam yiw googu noonu suñu borom lan la la ciy fay nag yàlla yàlla yokk mën ak kattan gi yokk ko bu baax a baax a baax a baax incha allah merci beaucoup Moustapha merci beaucoup Cissé euh, euh, ñu gis la nga doon un jeune euh, nga nga bokk ci album Aïda Samb ma frère maa leen nuyu na mu naan nag <laughs> album Aïda sam nga bokk ci ñi ko def kër yi mu doon album boo xam ne album bu def fureur la ñëpp bëgg ko yow en tant que jeune naka nga gisee succès boobu ak yow ni nga ko ni nga awoo amee ah, loolu contentement la ak mbégte parce que tey jii nii nit boo tarbiyu boo tarbiwul rek maanaam doo man a yegg fu sori te olof Ndiaye dafay wax ba bu am solo fii ku fi ku fi yëg ca kaw rek dan la dan la bëmëx te maanaam Prince Art dañoo nekk label bi nga xamante ne maanaam lu nekk si ñun ñoo ko def si ñun parce que tey ki la jàpp ba ngay ne ba nga dee xale mënoo dara mu def mu def lépp ci yow am ñu la fa jiitu nga ñëw topp si ginnaaw ñooñ di wéyal loolu noonu kon loolu sag ak fierté album bi génn réussir mu neex trop trop trop daal encore non aaw naa ci ci tournage yi <laughs> yaa dis gor sëy si woo yëngal kër ge dalin ko ci bi jeeg waaw bien sûr Aida du way lu dul def succès du way lu dul def bës parce que ndaanaan la dafa moon macha allah <laughs> merci beaucoup mon frère jërëjëf merci beaucoup Nabou Mohamed maa ngi lay siyaar tu es devenu le chanteur le plus suivi au Sénégal loolu la yàlla dogal gis nañ ko ci ci ci koor gi toogoo benn yoon noppalu Mohamed ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu soppey maa ngi lay fay jànnaar le meilleur yow la yow laa tuddee le monsieur des euh, euh, animateurs des journalistes des animateurs yàlla defal la tawféex guddal sa fan ñu lay baalu àq ci koor sunu soppe nga yaa ngi ñuy bëggee ci koor gi di la wax baal nañ la yàlla nañu yàlla boole jéggal te ñu fekk ko ay déwéni déwéni déwéni déwéni si barke yonent bi sax ma jàpp ni réew mi woykat yi ñiy tàgg yonent bi yaa leen mën ame da ngaa mën a solu xolo boré de li nga sol boo fi ñëw ba dem doo gis ko sol lii man nag damay man contraire dama dama wute ak gars yi bu ñu de gos man droite laay jaar. non Ameth da mën a solo barki Serap. nga xam nga yonent bee fi jaar rek waaw ah, Modou Mbow ma man ko ma sol ko dem si ndogu tos xam nga tos sama xarit la te tey faa mu saali ma xeer dama sanal. mais ren nag avance avance su gis ngay cant cant yu mag yi bâche yu rafet yi. waaw dañuy taxale rek waaw dañuy taxale gars yi dañuy béggee di construction di ko béggee nekk ay soppe ba pare bi waaye nag nekk ay ñoo xam dañoo fan Mouhamed Allah ci euh, bëgg yonente bi ci groupe bi muy ñëw teg en xale mu ñëw jël initiative bu bàyyi lépp day tag yonente bi léegi nag gars yi di ko seetaan loolu moo tax fu ma nekk rek daanaka ku ci am tantam rek man ngay bëgg ma ñëw. mën ñëw ñu dem Grand Théâtre. waaw mooy yoon. jeex na mat na nag kon comme gars yi nag yóbbante ñëw ñu dem bu ñu paree rek ma jël communication bi teg ko sa loxo ñu mel ni yow gars yi internet yooyu bu ñu demee grand théâtre daal di ko toj yëngal ko ba mu yëngatu nag bu soobee raaya musique bi passé yaa jël bii di ñëw yaa koy jël dama laa waxoon ne la maa koy jël ah, nga ma bi ma jël interview waaw ah. maa jël man tamit am naa yaakaar ne bii jël parce que ren da nga koo liggéey la yaa ngi liggéey li tax nga gagné ballon d'or a xaw ma li ñu ak locataire ñëw parce que ñooy bokk liggéey bi ñëpp gis ni ma sonole mais tey su xewle dara ba mu woote lu ñuy def da nga ko a bàyyi fekk si ko donc loolu moo tax euh, gone bu yaru la ku am cër ci ay magam la ku am cër la ci liggéey bi lu ñuy def donc sant yàlla la su ma ñëw ci bisam. d'accord ci biir loolu saison Karma jeex na nga joué ci rôle bu am solo nekk ci waajuru Mamadou Lamine waaye gis nañu tolof tolof yi nga xam ne amoon nga ko ci biir euh, ci biir série bi ñëpp daal di apprécier ce jeu d'acteur donc mën nga ñu wax euh, saison 4 euh, bi nga xam ne xaw ma saison 2 bi nga xam ne moom moo di Karma lan moo la ci gën a marqué. waaw Karma moom bëri na ay séquences yu may marqué. am na séquence boo xam ne Mamadou Lamine bi ma koy pees parce que man bëgguma def di lu métti donc bi mu ko pees j'ai pleuré parce que lu ma métti la de de passage maa ngi koy nuyu sama kuul doom la sama rakk la mais aussi séquence bi ma doon wax sëriñ bi su fekkee feebar bi mun ko dugal ci bu ko dugal ci kenn nañ ko def ci man man ma angu ko parce que man jeexal na parce que foofu damaa bëgg woon ne kilifa da mat kilifa dernier kaddu yaa ko moom donc euh, c'est des bëri na lu ma marqué ci affaire yi et de passage maa ngi nuyu acteur u Karma yëpp sama jaboot gi euh, mais aussi El Hadj Sissoko le réalisateur ah sooy wax man ba suñu yaay ñëw nag ñëw man damay dagg waaw suñu kilifa la yaa si waaw suñu kilifa moom suñu ñëw moom damay dagg waaw non ñoo ngi ci programme yi dañoo ngi ci programme yi suñu yaay su ñëw moom da dañuy dagg lépp bàyyi mu taxaw te dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram xam nga neexul sa doom chaque jour ñun suñu tournage amuñu guddi amuñu bëccëg mais nga bàyyi ko muy dem mu nekk xale bu ndaw di ko ñaanal mais dañ koy ñaanal moom yàlla mu fekkee lépp yàlla bu ñu séddal dara ci ginnaawam mu dund ba. sëtam yi di koy dirigale ay kaay maam booy jaaral fi yaay booy waaw merci beaucoup papa yaay yaay da ngay dugg si nii yaay da ngay da ngay dugg si nii daal di taxawee nii te yàlla eh, eh, eh, sa dooma xewle wa rahmatullah wallaahi <laughs> yaay booy nuyu nañ la fay naa la fay naa la fay naa la jànq tey noo dundee li nga xam ne acte bu noble bi sa doom ah, daal di ko defaat fii ci këram di Kër Massar xanaa di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu bu baax mboolem képp ku fi teew du nuyu waa quartier bi nag surtout ndax daar Salaam bi maak tos ak xiir saa magam dan noo xam xam su nu njëkkee ba tey jii ñu ngi may dégg kon tos bu defee lii tey ñëwoon naa at mu jot da ngay mën lu ko raw fekkoon naa la Auchan daaw nga interrogé ma man la déwén lay ëpp mm-hmm. barke Cheikh naa ma Tidiane gàmmu daa jot moo kiir saa ñu boo fëgg li ñu yor paasal ma yóbbu ma feej mu siyaare ji Cheikh Ahmad Tidiane dara ëppul loolu boobu laa ko gën a ñaanal nag dama ko doolee ñaanal rek ndax dañoo xool li ma bëgg ñu defal ma ko ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu maa ngi sant yàlla di julli ci yonante bi kattani yàlla ak mbaaxoo yonante bi kii di xiir saa ak seen mag ak mbooleem jullit bu leen xam yal yàlla sàmm leen te aar leen aar seen alal barke Cheikh naa ma Tidiane Chérif maa ngi koy ñaanal nag lu mu def reen bu dewee ne dana def lu ko incha allah ndax moo ki magam lu ñu def fii rek dañ ko ci man lañ ko njëkkee dañ maa teral dañ maa teral teral ku ma xam kon lu ñu def ren bu dewee déwénee daañu def ko incha allahu rabbi sama yàlla jërëjëf boo amee kàddu yoo koy dénk rek na wax nga lu am solo ndax képp kuy liggéey rek ñaan nga sa waajur même boo liggéeyul sax bépp doom ñaan nga sa waajur di xolam di sedd ci yow saay su ne mm-hmm. amee nii nga waxee sa xol sedd na euh, sa xol macha allah boo amee looy wax rek ak loo koy ñaax lan lay doon xanaa di ko wax rek mu góor gën a góorgóorlu taalee kere ba ma ko texee ci loxo pot loolu laa wax pot ba ma ko tegee ci loxo abaa loolu laa wax abaa mi ngi seeni seen loxo ndax ki la jiitu ci nekk moo moo lay wan nu ñuy taalee na toppee ku nangoowul toppee kenn du la topp ndax lii tey toppee moo ko waral te feek mi ngi toppee day am lu ko ëpp toppul kenn kenn du la topp dama koy wax ni seeni mag ay magam ak moom na topp ci ay magam ay magam ndax ay magam topp nañ ma kon moom tam na toppe ku dul toppee kenn du la toppee na gën a góor góorgóorlu ci ay dëkkandoom surtout ak àndandoom lu moytu àndu daaw sama xaritu daaw bi na ko moytu ñu ànd ak ña mu daan àndal rek ñoom nag laa gis ba muy xale ba tey ñu mu daan àndal rek laa gis muy àndal wax dëgg yàlla. lu ñu mën a raconter moom rek ci enfance am Toch. ban xale la woon. xale bu ma bëgg. ndeysaan xale bu ma ragal nag. lu mu mën a bu buñ ko ne sa yaay nga ñëw ba ca école ba muy jàngee. suñ ko nee demal woon ma sa yaay sax du ma woon mook As Diop mi ñoo bokkoon classe école ak seeni moroom ñi ngi fii ñëw nañ tey xam na maay kan jox na ma cër xeebu ma benn yoon te ragal yi ma la wax loolu la ma ragal ba tey daf maa ragal moom tos barke Alaaji Maalik may ñaan yàlla yal ko yàlla teral moom ak xiir saa magam ak seen mag jéem a nekk ca këram ñoom laa am yal na yàlla dimbali leen ak sama caar mi di seriñ Babacar yal na yàlla taxawu yàlla sàmm leen aar leen ak mbooleem jullit tas lu ñu mën ren yàlla man déwén lu ko ëpp ndax kenn mënul dara ñi fi ñëw ñëpp rek ñoom la ñëpp ñoom la ndax ku woote ñu wuy si rek dafa rëy dafa rëy kon ndogu yi yal nañ ko ndogu ci jàmm kenn ku ne dellu sa kër ci jàmm ak salaam fekki jàmm bu fekkee jàmm ak salaam Sénégal gi yàlla def ci jàmm ci barke yonente bi lépp luñ fi xalaat yal ci yàlla wis ndox mu sedd barke a Ahmad Tidiane Chérif avec Toch moom nag il n'est plus à ci réew mi tos nga woote ndogu royal Sénégal ñëpp wuy si la mise à part wuy si bi ñu la wuy si mais nit ñi ñëw nañ wuy si la ci xam-xam ci doole ñii ñi ñëw bàyyi seen jitte yëpp ñëw wuy si la ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga wax ak ñi nga xam ne ñoo ñëwoon tey wuy si la tos en tout cas ngi leen di fay di kontaan bu baax a baax ci people. 221 people 221 ak Seneweb sama kër. waaw ñu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ku ma xam-xam maag waa Seneweb waaw people 221 tam ñu ngi leen suivre ñu ngi def liggéey bu ama am solo di kontaan bu baax yéen dèjà ci seen teewaay di leen masaw tamit ci coono yi parce que yombul woon euh, di kontaan ci ñi fi teew ñëpp nag wax dëgg fa yàlla di bég bu baax a baax di leen laaj nag ndax ndogu ngeen ba ba. man macha ah? allah man. yow ndogu man man man ndogu naa. waaw presque ndogoogul mais garaawul. presque traiteur yaa ngi ci ginnaaw. am na réservé nañ fa. ah euh, xanaa waa presse bi ñëw ba. presse bi ndoxaguñ presse bi yàq der ñëpp ndoxu nañ. presse bi ndoxuwul. toog la ñu naafale ba pare. alors tos yàq nga ko waaw waaw tos euh, euh, ndogu dafa laaj moyen. ndogu dafa laaj am ressource humaine maanaam ñu nekk si ginnaaw di si jàpp naka nga def ba taxawal loolu ci jeune te yombut li nga def nii. waaw lii moom mën nañoo ne bett nañu bettuñu quoi parce que. mën nañoo ne deuxième édition bi ni mu mel bett nañu par rapport ak première bi parce que première édition bi ñu ngi ko commencé ak 35000. ñu ngi ko defee woon hôpital Kër Massar. Euh, deuxième édition bi mu ñëwee wax dëgg fa yàlla li ci def ci xaalis ñemewuñ koo wax ndax boo waxee ñi dinañ gëm ñi duñ gëm mais ñun xam nañ te xam nañ ni yàlla rek la ñuy defal woo woo waxuñu pour kenn. ñëw ne da cee war a jàpp wala affaire yooyu ndax loo xamante ne ñun ñoo am envi def ko ñun ñoo xam ne daf ñoo war pour ñu def ko parce que nit booy liggéey nit ñi bëgg la sa koñ bëgg la di la soutenir ci lépp looy def rafet na benn bis lu toll ni weeru koor nga xamante ne bis la boo xam boo defee benn yàlla fay la nga ànd ceeg say xarit ak say am di jàmm ànd ak jeunesse su waa koñ bi aussi ñoom tamit ñu def ci liggéey bu am solo la jeunesse de Darou sama koñ fii ñu def ci liggéey bu ama ama am am solo waaye nag am na ay bonne volonté yoo xamante ne yëkkati nañ seen loxo def ko ci parce que daaw dama ko doon def naan non non ku joxe xaalis sax duñ ko jël parce que dañ ko bëgg a def ñun ak suñu propre moyen mais dafa am ku ñu wax ñu wax bu am solo ne ñu nit boo def teranga am koo xamante dafa ñëw bëgg cee participer ci yool bi bis boo ko xañee loolu mun nga cee jële bàkkaar waaye mënoo cee jële tuyaaba waaw defal li nga mën bu amee keneen ku ñëw dool la jëlal nga def ci ñu ci sant tamit ñu ci jàpp ñëpp ku ci mel ni Abdoulaye saw ku ci mel ni ku lim daal ku lim da ngay juum ba du jaawoo ñoom ñëpp jàpp nañ ci aba no stress ñoom ñëpp jàpp na ci boo limee da ngay juum sama grand bii tamit bàcc mi taxawal biir si Kër bi war fay indi Wally Seck le 29 avril jàpp na ci bu baax a baax ñi jàpp ñëpp mënoo leen lim boo limee da ngay juum di gërëm samay xarit samay am di jàmm waa Tos Events yëpp ñi nga xamante ñooy sama fan si ñooy sama doole ñooy lépp wallahi azim ak la jeunesse de Darou aussi di kontaan ñoo jàpp moo tax mu mel nii. d'accord mhm. ci biir loolu man li ma lay laaj rek mooy sa relation ak sa yaay. Mhm. parce que bu ma nee sa relation sa yaay ñu bari dina leen jaaxal. Mhm. Ah, parce que relation doom ak yaay relation bu normale la. Ah, mais bi dafa particulière donc euh, relation bi lan exactement parce que gis nañ sa yaay sànq bi muy wax hôpital bi mhm. bi ko njëkkee woon def mhm. euh, nit ñi bariwuñu woon mhm. mu ne woon ren fii nit ñi dinañ bari euh, ba mu jéggi dayoo li mu waxoon ëpp na parce que ñiñ fi gis tey bâche bi kenn xaju fii lan mooy seen relation yéen ñaar waaw man moom boo may laaj sama yaay bu ma wax mën naa fee fanaan comme mun nañoo bañ a yeggale tamit ndax man damaa nekk ni koo xamante ne aw ma lu dul sama yaay aw ma aw ma aw ma aw ma lu dul moom man moom la ba ma nekkee xale ba léegi moom laa xam musuma jàngee école école privée laa mës a jàngee ci jigéen boo xamante ni dañ naan jigéen bu mën góor dem marché jaayi taxale lu mu am man ak samay rak ak samay mag moo ñu yor ba ñu toll nii xam nga koo xamante ni ba nga nekkee xale ba ni ngay màggee amoo lu dul moom kooku noo mënti mel loo mënti am koo mënti doon moom la kon ñun amuñu lu dul suñu yaay muy wax noonu tamit maanaam yéene la rek bu mu am ci ñun di ñu ñaanal parce que yaay moom mënul bañ doom ak lu mu mënti def da koy ñaanal waaye yàlla xam na ni yéene bi ñu am defal ko ñun li ñu am defal ko yàlla xam ne li ñu koy ñaanal mooy mu gudd fan wér gu yaram ba fekke ko ñu bañ a séddale dara ci ginnaawam ndax lépp lu ñuy def di ci sonn moom lañ ci jiital avant keneen keneen ku ci yàlla boole wërsëgam na dina ci am waaye moom mooy priorité. sa <laughs> yi laa bëgg xam lan la parce que euh, du benn du ñaar ñuy dem ci ndogu euh, acteurs yi. Mhm. mais du ñëppay ñëwandoo alors que bii dañoo gis Toch mën nañ ne du série Virginie rek. Mhm. acteurs yi comédiens yi macha allah euh, ku lim yi ku lim jum ñëpp bàyyi nañu seen i yitte daal di ñëw teewal ki nga xam ne moo di Toch mhm. lan mooy sa relation ñoom ba ci animateurs yi. milieu bu concurrence. waaw xay na daa tombeek ñu am jot rek yeneen yeneen yeneen yeneen ñi xewle tamit xam naa gis ñu leen fa dafay tombeek tamit amuñu jot waaye wax dëgg fa yàlla yaakaar naa ne milieu art bi moom ñu ci ëpp ñu ëpp man boog ñi ma ci xamanteel dëgg rek laay wax jàmm ak salaam lañ seeq foo kaf reetaan fuñ ndaje mun nañu nag gëj a déggante par téléphone ku nekk mun ngay occupé jàpp say business mais fuñ ndaje man li ma gis si kanam mooy foo kaf reetaan te événement bi dama cee am sens mm. ci série yi ma doon tourné yëpp fu ma ci taxaw ci plateau damaa am chance jàkkaaroog nit ñi bët ak bët invité la mais bu doon sama téléphone bi kese ma war a woote di nga woo di nga fàtte ñi di gërëm nag ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ di leen ni yombul présence bi ñi jot bee ko dul maye parce que fi toll nii temps moom dafa xaw a cher te korité bi baa ngi jege si te instant mooy dernier dimanche bi ñu bëri ci lañ seen dogu di kontaan bu baax a baax ci présidence nag ku am solo koo xamante ne ñi fi ñëw ñëpp ñor nañ ma mais dafa am ku ñëw koo xam dafa def lu ma marqué muy Aba No ñëpp xam nañu ndogoom yi mu waroon def campénal mm-hmm. tey mm-hmm. mais yàlla xam na ne ndog yi moo tax mu puus ko wallaahi azim mm-hmm. niñ ne staff beeg ñëpp artistes yeeg ñëpp nañu àndandoo. dem ci ndogu tos Kër Massar. Mhm. barke alxuraan bokk na ci artistes yi jiitu. Mhm. c'est vrai bi ma yegsee moom laa njëkk a fekk ci na mhm. nekk na ni koo xamante ne yërëm na ay raxam. jàppale na moroomu artistes am yéeg. raxam yéeg ñëpp kooku mënuñoo def lu dul sant ko di ko gërëm ko suñu patron la suñu mentor la suñu woon puus leen ñun dañuy ko ñun. waaye moom mu bàyyi bosom puus moom ñëw fekk si ñu loolu nekk na lu ma marqué trop ci bis bi barke alxuraan. Abaa nee na njabootam gi bu ñuy jëlante du ko yëg. laaj. parce que damaa dem ci kat yi. booy pulo toog. ah Windows ñoom ñëpp ñu toog. Ah, man leen xanaa réception bi la ñu ne ma waaw tey réception bi la. abaa nee na yéen bu di jëlante doomam yi bu ñuy jëlante moom du ko yëg. ah mooy xëy na dafa am yeneen doomam yuy jëlante ci ginnaaw di wax doomam yi jëlante yàlla. bokkoo ci doomam <laughs> jëloo kati yow. du ah. ma kati de. ma waaw. <laughs> waaw ñama xit sonal nañu. maa maa maa maa maa kii maa maa maa wax ne non xam naa fi ma nekk de. xam naa jël nga ko wala jëloo ko parce que gars yi nee nañ réception bi la. ci kanamam moom. waaw xëy na loolu nag lu ngeen envisagé la rek. lu ngeen xëy na yéen a bëgg a réaliser seen i rêve rek. di teg loolu noonu yéen a bëgg a jël série bi teg ko di gërëm nag waa du waa parce que parce que Katim li ma koy waxee à chaque fois sama sister la. dañoo bokkul liggéey dañoo bokk liggéey di liggéey ñi ma fi bokk liggéey ñëpp gis nga leen la plupart koo fi gisul ak daa amul jot waa Virginie yi ñëw waa are mère Thiaba yi ñëw nañ Sora ngi nii taxaw waa Abasso yi ñëw nañ ñama xit a ngi ansa yaay dafa amul jot woo naa ko moins cinq mu ñëw mais dafa amul jot man ko comprendre naa la yaay booy ah. toogal amul benn wallahi azim di kontaan bu baax nag ci ñi nga xamante ne jàpp nañ ci bu baax baax ku ci mel ñoom ah, staffu ñoom Aba ku ci mel Ibou waa këram soxnaam sama ménagère bébé daaro du ay waxi sew du daaru mais seen waa kër ñoom ñëpp xam ne mm. ne sama valise ak génn dem di ñibbi si Kër Massar chaque jour day métti ñoom ñoo may téye seen kër di ma jox reer di ma jox ndogu di ma jox lépp kon ñooñu boo organisé ay ndogu ñoom it ñu ñëw wuy si la war nga leen sant war nga leen a gërëm la famille Diam ñëpp maa ngi leen gërëm di ñaanal suñu yaay Marie Diagne yàlla ko yàlla xaare àjjana. kontaan nañ maa leen gën a kontaan ñii dañuy fay de. xamuñu leen ñun. déedéet euh, maanaam gis nga man Bercy la Kër Massar. Bercy Kër Massar. jarul reere jarul reere dañu ñëw commercial. commercial waaw jaaruñu commercial. bu paree nga jàpp waxal da ngeen eh, mais dégg nga wala dégg nga wala bul wax. na jàdd commercial. jaarul commercial. dañ waxal ba nga jàpp leen ci bis ñoom dañoo jàpp ci bis kii bi ñoom ci jàpp ñoom. même rek ñoom. ñoom di eh. eh mais eh, eh, kii la jaañ wax même li ñoom dañoo jàpp ci bis bisu bisu tey jii ba bis bi ku ñëw mën a toog mën a lekk mën a naan kon bis bi moom bu ko bu ñu xewlee te ba ngeen ñëwee fekk ngeen fi seen i bâche seen i lépp kon c'est parce que dañ cee jàpp ndax ñoom xam nañ ni boo yi Kër Massar gii ñu ngi ciy jàpp di ay artistes di def yu mel nii ñu ngi ciy jàpp. kon yéen tamit doole ngeen doole ngeen ngeen ba ñëw indi seen i moom ak Diagne Events. doole loo xewle Diagne. doole ko le 29. le 29 lañ xewle. Mm-hmm. Bercy. Kër Massar. ak Wally Seck. Mm-hmm. di si woo doomu Kër Massar yëpp. tike yi génn na waaw tike yi génn na ñu ngi koy jaay commencé na 5000 10000 10000. dina fees dell le 29. bi njëkk ci après koor gi. bi ni muy demee. waaw. tike yi nag daa am. ñii dañ ñuy fay waay waaye ñii dañ may fay ah. ay te làmb leen ah. bu leen fayul xola yow kii di communiqué nan kii bu leen fayul man dinaa leen fay ah, parce que xam nga lu tax man may jël engagement boobu. damaa xam ban yéene la am pour liggéey. Angleterre la nekk barke alxuraan ñàkkul dara. kii bu duggee si yii wala mu ñëw di def dara ci Kër Massar dañ cee toog man ak moom ñu waxtaan mu ne dara ñoru ko lu dul Kër Massar. kii moo njëkk a indi abu cubaloo Kër Massar kon xam nga ne miin na événement bu demee toog Angleterre aju. Mm. yaakaar naa si ñun la doon métti waaye moom mën na lijjanti boppam. mu ñibbi si waat fas yéene liggéey liggéey bu am solo fii Kër Massar ni ñu waa Kër Massar amee bàcc bu waa Pikine amee bàcc waa Guédiawaye amee ko noonu bu keneen ak keneen léegi culture Sénégal développé moo tax ma engagé wu ci événement bi joxe ci sama bakkan bi. d'accord le 29 avril. bakkan nga joxe de. waaw yow ak ak ruug lépp.